salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net dal leen jàmm ci les minutes de l'info benn mbir kase la ñuy waxtaane di mbir moo tiis xam ngeen ni président Macky Sall mi ngi ci diwaanu euh, maatam ak li ko wër di fa def tournée économique moom ki nga xamante ni moom mooy euh, Abdoulaye mbay Pekh di liggéey fi nga xamante ni moom mooy d di communicateur euh, traditionnel ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Modou Bara Dolly ñoom oto ba nga xamante ni dañ moom la ñu duggoon oto ba moo def choc maanaam dafa accidenté. ci diggante fi nga xamante ni moom mooy euh, village bi nga xamante ni mu ngi tudd Uduru waaw diggante boobu la euh, mbir ma amee waaye nag euh, li ñu si doon njortu amu ci mooy génnum bakkan maanaam bakkan rotu ci waaye accident ma naka la demee boo leen gisee ni oto ba dafa këppu ndax dafa daw ba këpp ndax dafa dal ci benn oto loolu lépp ay xibaar la yu ñu leen di toppandil waaye ñaar ñiit ñi nga xamante ni ñoom laa leen tuddal sànq ñaar ñu jamono ji ñuy wax ak yenn kenn euh, génn ci àddina waaye dañoo blessé blessé yi nag fan la toll xibaar ñu ni ñu taxu koo garaaw waaye nag dinañ ko topp ba xam euh, wànneen fan lay mujjee ak yi gëtam di leen wax ni rek way leen di abonné seen site d'information Dakarnet dinañ topp xibaar boobu ba xam naka la demee way leen di abonné seen site d'information Dakar Net dara du leen rëcc ci réew